arbitre bi siflé waat na waaw guy gi Mame Balla mbay guy gi moo la féetee càmmoñ Mame Balla moo la féetee ndijoor ndeysaan arbitre bi atte na woowaat leen ñoom ñaar gi noonu mbay guy gi Balla ndeysaan la jege si nañu Mame Balla cokkaas ay guy gi Mame Balla waaw waaw Mame Balla jokkaas na dinañ xeex ñoom ñaar Mame Balla ñi ngi lewaatoo guy gi mu ngi noonu mi na tekk di déglu Mame Balla Balla cokkaas na léegi mbay guy gi day dem de mbay guy gi dóor na mbay guy gi day dem de arbitre mbay guy gi dóor na waaw waaw arbitre waaw waaw ndeysaan waaw waaw arbitre sooraaleel li ci sa gannaaw mbay guy gi daa bëgg a xeex mbay guy gi Mame tànk ba la jëm waaye Mame Balla mbëru tànk la moytul cokkaas Mame Balla ngi cokkaas mbay guy gee ngi cokkaas Mame Balla na jëli tànk ba du baax mbay da lay gis Mame Balla da daa mën a bëre mbërëntaan la combat bi bu yàggee mbay guy gi la Mame Balla la arrangé mbay guy gi dugg na Mame Balla fi mu jàpp woon maay moom loxo bi mu gàll ci kaw guy gi du ko gàll ci kaw ndax gàll bi baaxul mbay guy gi Mame Balla woon maay moom loxo bi da koy dugal ci biir ngemb mbay guy gi Mame jàppul mbay guy gi jàpp na mu ngi koy buux mbay guy gi mu ngi koy buux mu ngi koy buux mbay guy gi maam Balla mbay guy gi gën naa jàpp ngoobu day jóg ngoobu kal na yëkkati na kal na laay laaxee la naa mbay guy gi yëkkati na ko ba ci kaw mbay guy gi daan na maam Balla mbay guy mbay guy gi daan na maam Balla mbay guy gi yanu na ko ba ci kaw dóor ci suuf mbay guy gi daan na ko Adama Gaye yàlla na yàlla jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla. jërëjëf yàlla. xaaral xaaral xaaral Bambey Bambey xaaral. Eh. ma ngay jooy lu ma la waxoon ma ngay jooy. leen mankaan.